darsu bi passé moo ñu jàngal lii waral sangu waaye na tey ñi ci darsu bi nga xamante ni mooy faraa'idul ghusl farataay sangu yi fas lu ñu fasal la may doonoo dugg ci wax ji nga xamante ni wax ju bees la boo ko xam wax ji njëkk ji na faraa'idul ghusl farataay sangu yi ak niyetu mooy yéene na farataay sangu ba ci njëkk ay xaaj la ba ci njëkk ñeent la ba ci njëkk mooy yéene yéene na sa xol na ngay defee ne ko ngay wax ni di yéene si xol na koy defee anda suur yi jamono bi mu commencé anda a yi jamono bi mu commencé sangu nu wal fawr ak méngale ñaareel bi mooy méngale méngale mooy na topp tala na topp laan suñu jàpp waaye na si nekk dafa dagg ah, ba si ak mu dam dag ko ta tay ko waa loolu dafay li waaye su nekkee diggante boobu yàggu dafa na mu ragg mboolem yaram bi mboolem yaram bi ba fi am xóot-xóot naka ragg su nekkee na ginnaaw bi mënu kaa ragg boobaa day jox keneen ragal ko waaye ku koy ragal boobaa day nekk jabaram wala mu am benn jaamam jaamam boobu ragal ko waaye ku dul loolu waa ñeneen duñ ko mën a ragal comme rakkam rakkam yooyu noonu a ragal mu ne moom ak matal mu ne mu matal cër yi yëpp cër yëpp fexe mu sang comme ça raxas ko gaa yokk si benn mooy léegi ñu yokk si benn mooy gaa yokk si benn ñu yokk si benn mooy mooy xalil mooy mu raxas mboolem karaw karaw fépp karaw nekk rek mu raxas ko waaye nag mu ne fépp karaw nekk karaw karaw boobu fépp karaw nekk na waaye suuxi na kon benn boobu lañ si yokk waaye mu ne su nekkee dafa wax wala matal cër yëpp waa suuxi matal cër yëpp boobaa kii dugg lii dugg na si mooy waaye matal cër yi boobaa mooy xali ah, mooy raxas mboolem mooy karaw karaw fépp mu nekk mu raxas ko boobaa loolu matal cër yëpp dugg na ci nata cër yi fépp am na xóot xóot mu raxas ko comme tànk yi mooy oom mooy diggante boobu noonu ak fu ñu toogee diggante boobu noonu ak bakkan bi mooy ci diggante boobu fu ñu noyee foofu noonu diggante boobu naka raxas ak fépp foo xam ne am na xóot xóot rek ak diggante baaraam yi mooy si baaraam diggante yooyu mu raxas ko ba mu seet mu waaye nag sangu tamit mën na ko defee lu dul comme mën na ñëw rek sang farata na ñëw yéene soo yéenee rek na dugg si géej sangu boobaa sangu bi baax waaye nag ñu ngi koy am na koy jàngale noonu noonu moo gën ne sun sunnaay xaslu raxas ñaari loxo yi lal ko si ñaari ci kanjar yi kalu duy kam jàpp kam nekkee sunna si jàpp mu ne sunna yi la lay waxal ne sunna yi na mu ne bu si njëkk mooy raxas ñaari loxo ba si tikk njare raxas ñaari loxo ba si tikk la si farata ah, ah, si fara ah sangu sunna la mu ne njàpp tamit ah la si njàpp tamit ah la mu ne wal man man ak gàllankoor mu ne ñaar mooy gàllankoor. wal istinsaaw soraxndiku soraxndiku mooy mooy dugal ndox bi wal istinsaaw ak fiiru fiiru mooy mooy sooy ñandu comme nooy def noonu def génnee ndox bi kon waxas du simaawul usnayna arxas bën bën noppi way mu ne kon mu ne Ah, sunna yi bu si njëkk may raxas naa loxo yi ba si tikk njare ba mu gàllaxndiku ak mu sorandiku ak fiiru ak dugal ak raxas ba bën noppi raxas bën bën noppi sunna la waaye si jàpp jàpp baagaat mooy li nekk si gannaaw bi loolu noonu lépp boobaa loolu sunna lay nekk waaye nag su nekkee kii boobaa loolu farata mooy nekk si ginnaaw noppi wala yooyu biti noppi waaye su nekkee si jàpp moom boobaa loolu sunna lay nekk mooy noppi yëpp sunna la mu léegi lan mooy bën bën nopp mu ne waxee moom asuqwat mooy bën bën ak jaax di dugg fi si si boppam mu ne bën bën nopp yi mooy bën bën la boo xam ne day dugg si si biir bopp bi mu ne kon ah, nit ki si sunna yi boobaa nopp la day dugal ah, bën bën nopp yi raxas foofu noonu mu ne baagaat noppi fa yajib dana war raxasu zahira mu raxas biti ba ba baat ne ak biir ba mu ne fii raxas noppi na boobaa dafay raxas biir biti ba ak biir ba fii yëpp nii nii nii ak bën bën yi foofu na da koy raxas no fa daa ilu ngineeri léegi wax na la farata farata yi wax na la ko léegi mu wax la sunna yi léegi mu lay wax ngeneer mu ne wal fadaayilu ngeen ne al bidaayat mu tàmbalee bi xasli nijaasati si raxas sobe mu ne summat zakara topp fàttali ko fay na mu yéen mu ne ngeen ne bi si njëkk mooy mu tàmbalee ab raxas sobe fa lay commencé raxas sobe mu ne su pare mu raxas zakaram foo mu yéen raxas suy raxas sobeem boobaa kooku day xool te lu ëpp may ju diggante jumbax ba si oom bi foofu noonu diggante boobu noonu mooy ëpp li tax lay taq sobe waaye mu ne su nekkee na feneen tamit taq na sobe boobaa tamit na raxas foofu noonu mooy fu taq sobe waaye su raxasee fu taq sobe ba pare boobaa day raxas zakaram su raxas zakaram mu yére mu ne su nekkee ki nga xamante ni moom ba muy raxas zakaram moom ba muy raxas zakanam daf ba muy raxas jumbax ba si om um, dafa yéene sangu sangu farata boobaa kooku dafa yéene sangu sangu farata boobaa kooku su suy sanguwaat boobaa kooku su demee ba foofu su ko raxasu dara nekk su waaye su nekk yéenewu sangu farata dafa yéene a dinu sobe rek boobaa kooku moom su demaatee ba sangu farata bi su wala raxas foofu su nekkee raxasu ko boobaa sangu bi dafay yàqu mu ne mu ne kon su raxasee sobe ba pare day yéene mu raxas suy raxas zakaram lay yéene mu ne andaw fay na mu yéene andaw si jamono bi mu raxas zakaram su ma aadaal wudu topp cër njàpp benn maratan maratan benn yoon benn yoon su ma aala mu ne su pare na benn benn marata marata mu ne marata benn benn mu su mu ne kon ni ki su pare su raxasee zakaram ba yéene ba pare mu ne day jàpp benn benn kooku dafay jàpp benn benn mais su neexee nag si jàpp benn benn su neexee mu raxas tànk yi su ko neexee tamit mu bàyyi ba su mujjantamaa sang mu soog a raxasee tànkam mu ne su ma ala jasadi topp mu raxas lu gën a kawe si yaram bi mu ne su paree mu raxas lu gën a kawe si yaram bi mu ne lu gën a kawe si yaram mooy bopp bi raxas bopp bi mooy mooy raxas bopp bi mu ne wa tasliisu rasi wa tasliisu mu ñetteel raxasu rasi ah, raxasu rasi raxas boppam bi mu ne suy ñett ñetteel boppam mooy comme ça suy jamono bay tooy tooy loxom lay masaay boppam ba pare su paree mu jël benn tànk tànkoo ba pare dem ah, jël bopp bi kii ko jëng ko ba mu nekk ba mu yegg si der bi mu jëlaat tànk ko ba mu nekkaat si der ba mu ñett ba mat ñett ñetti yoon noonu la koy defee mu ne su paree mu ne mu ne wa taqdimu saqi jasadil aymaani mu jiital ah, wetu nday jorom su jiitalee wetu nday jorom ba pare wetu nday jorom day jël mooy si gannaaw commencé foofu ba si oom bi ba pare jëlee mooy commencé commencé si kanam bi jël si ah, si kii bi ba si commencé si kaw ba si oom bi léegi su paree mu jël wetu càmmoñ su jëlee wetu càmmoñ mu commencé si ginnaaw bi jëm ba si oom bi ba pare jëlaat si kanam bi commencé ba si oom bi noonu lay sangoo ba mu mat su paree na mu jël oom bi mooy oomu ndeyjoor bi foo lay commencé ba si suuf tànk yi su paree mu jëlaat oomu càmmoñ bi mu commencé si oom bi foofu noonu ba si suuf mu ne kon noonu lay sangoo mu ne waaye jàppal na moom. képp ki nga xamante ni sang na sangu farata boobaa kooku mën na julli noonu su sangoo sangu farata rek boobaa mën na julli ndaxte moom am na jàpp ndaxte bi si biir sangu farata bi moom jàpp na fa waaye nag su nekkee dafa tolle moom boobaa kooku sang bi baax na waaye jàpp lu boobu noonu moo tollee waaye sang bi moom baax na balaa moo julli moom fee moom jàpp waat mu ne kon ñi wax ni sango farata sangu farata kon mën na ko defee nii nen mën na ko defee nii waaye na def ko nii moo gën mooy ñu muy sangoo commencé day commencé raxas jumbax ba si omi su raxasee jumbax bi ba si omi ba pare na su raxasee zak jum ah, su pare mu raxas zakaram su raxas zakaram dafay yéene su raxasee zakaram ba mu yéene ba pare na mu ne kooku dafay jàpp benn benn dafay jàpp benn benn su pare léegi su pare mu xaaj yaram bi su xaajee yaram bi day njëkkee dajoo raxas ko boobaa xana war na day jàpp benn benn suy jàpp benn benn war na day jël mooy jël benn ba comme ça su raxasee ba bay yegg si tànk yi comme ça su raxasee loxo yi ba pare raxas kanam bi su raxasee loxo bi raxas kanam bi ba pare raxas mu day raxas ah, ñaari loxo yi ba si tikk njare su pare mu gàllandiku après mu soroxandiku après mu fiiru après mu ah, su pare mu mu raxas kanamam su raxasee kanamam ba pare après mu raxas loxo yi su raxasee loxo yi ba pare na ba si day raxas loxo yi ba si coon ci su pare na wax ne su pare day masa bopp su masa bopp raxas naa noppi masa day raxas bopp ñetti yoon day raxas boppam su pare mu delloo masa bopp su pare na mu ah, mu raxas naa noppi su raxasee noppi ba pare day massa ñaari noppi su massa ñaari noppi na avant mi raxas tànk mi su ba balaa mu raxas tànk day jël ndox ba mu jël ndox bu bëri ba pare joñ ko muy ah, day jël ndox ci toy toy loxoom boobu noonu lay jël ba pare ah, massa mooy jël bopp bi ah, massa ko nii ba fexe na ba kii ndox boobu noonu yëg ci der bi mu ne su pare na tànk yi na soo neexee mu raxas ko laxasee si toy toy laxam ba pare noonu boobaa day jëlaat ndox tànk ah, sotti si bopp bi booba jëlaat ba mat ñetti yoon su jëlee ba mat ñetti yoon ba mu raxas ba mu ah, yegg si der bi mu ne waaye su pare na mu ne su pare tànk yi da ngay raxas su ne su ko neexee tey mën na mujjee tànk bàyyi ba sang mu jee mu soog raxas tànk yi mu ne su pare na ah, mu xaaj yaram bi wax ni ndeyjoor lay njëkkee mooy si wetu ginnaaw bi après ñëw ba si oom bi après jël kanam bi ba si oom bi jël si wetu càmmoñ ñëw si ginnaaw ba si oom bi jël kanam bi ba si oom bi ba pare mu jël oomu ndeyjoor bi commencé oomu ndeyjoor bi ba si cëtu baaraam yi ah, mu jëlaat oomu ndey càmmoñ bi commencé oom ba si ba si kii baaraam yi léegi su sangu su xaaji yaram bi ba pare na mu ne kon lool loolu lay def lay sangoo farata mu ne soo wax ni la soo sangoo farata rek booba ku mën a dem julli naate ah kooku am na jàpp waaye nag su tojlee na boobaa day dem jàpp waa naxte toj laa tojlee waaye sangu boobu noonu baax na mu ne wa taqlil maay ak niiwal ndox bi al a'daay ci kaw cëri mu ne na niiwal ndox bi ci kaw cëri mais su nekkee ki nga xamante ni moom Ah, moom comité bi di yàq ndox jël ndox yu bëri di lii déedéet dama bëgg na niiwal ndox mi mais xool li xamante ni si waaye su nekkee ki nga xamante ni yaram dafa ñagas ba nga xamante ni ndox ah, dafa ñagas ba xam ndox bu bëri mooy gën a mooy mën a loolu boobaa day jël ndox boo xam ne doy na ko rek boobaa mu raxasi cër yi mu ne mën na see lu maat lu maatan dine aodun wala cër ah, min rusli si sangoom baadara na gaaw ilaa xas yi jëm seen xasam ay na tazakkar jamono bu nga ko fàttalikoo wala banda sa doonte si gannaaw weer la waada mu bàmmu masalla mu julli woon mu ne mu ne su nekkee xablahu njëkk loolu mu ne su nekkee ki nga xamante ni dafa fàtte ni leer ni leer waxoon ne leen si gannaaw wax ne leen gënal mooy xamante ni moo xam si digg farata la ko fàtte wala si digg sunna comme ça benn digg moo tooy mais su nekk dafa bàyyi nga neer léegi ba mu ko bàyyi na ah, moom mu fàtt mu gannaaw mu daka fàtt mu fàttali ko bu ko fàttalikoo na léegi loolu su ko fàttalikoo doon si ay weer la sax weer la sax boobaa kooku si mu weer la sax boobaa kooku su ñëwaatee rek boobaa kooku day ñëw def foofu noonu rek day def dina bu mu bàyyi su paree bu baamtuwaat julli mu julli woon kon ku bàyyi ki nga xamante ni bu suñu waatee nekku day ñëw jàppaat lépp de dee boobaa kooku boobaa day ñëw raxas foofu noonu rek waaye nag su nekkee moom moom moo bàyyi foofu ba pare moom moom mu fàttali ko ba pare mu tey dem def loo xamante ni moo ko tey ba pare ñëwaat ne boobaa kooku kooku boobaa sang boobaa balaa mu liwaat day day commencé waat jàpp bi mu ne su nekkee na ngant moo tax na boobaa su nekkee ngant waaw kooku dafay commencé sangu mu ne waaye su nekkee ki nga xamante ni ngant moo tax ngant moo tax moom comme ça fàttali ko ne waaye ngant moo tax waaw ngant boo xam ne am na solo boobaa kooku moom boobaa kooku su ñëwee ba tey tamit dafay yeggali waaye ko xamante dafa tey moom boobu lañ wax moom boobaa kooku moom su ñëwaatee dafay commencé waat sangu mu ne wa in axaraw dara yéexee na ko baada zikri gannaaw gannaaw bu mu ko fàttali ba tala yàqu na xuslu sangam mu ne su nekkee dakaa yéex moo lay wax ne su nekkee dakaa yéex fàttaliku na léegi ba mu ko yéex fàttaliku moom fàttaliku na ko ba pare moo tam tey def leneen waa kooku julli boobu noonu dafay yàqu dafa in kaana nekk na fi aadaayil wudu si cëri njàpp yi wasaada wasaada faw mu dajalante xaslu duy raxas ah, cëri njàpp yi ak zaaw doy na ko mu ne su moom ba ba muy sango dafa bàyyi cër dafa bàyyi benn cër léegi ba mu ko bàyyee nag léegi gannaaw moom mu dem jàpp ba mu jàppee ba pare def na boobu bu baa kooku du raxasaat loolu na tey ba muy jàpp moom raxas na loolu nit ki ki nga xamante ni moom mooy moom si guddi si moom julli na mu jàpp na comme ça si guddi si sangu na ba muy sangu na daa bàyyi karkaramam léegi mu julli waaye nalawoon na mu julli ba julli ba julli fajar fajar mu julli ko ba pare gannaaw tusubaar tusubaar ba mu jotee mu tojle ba mu tojlee na léegi gannaaw bi ah, takusaan tusubaar mu tojle léegi gannaaw mu jàpp ba mu jàppoo julli tusubaar boobaa kooku gannaaw mu fàttali ko ne moom ba muy julli fajar boobaa kooku noonu ba muy julli fajar ah, raxastoon ba muy julli fajar ba muy sangu ma ba muy sangu mu fàttali ko ne moom raxastoon ah, kanam bi boobaa kooku noonu kanam boobaa fajar boobu noonu da koy bamtuwaat waaye tusubaar boobu noonu du ba mu tuwaat ndaxte waaye tamit kanam bi du ko raxasaat ndaxte raxas na ko ba muy jàpp raxas na ko ba muy jàpp waaye na waaye sang ah, mooy gaye boobu noonu ah, kii fajar boobu noonu da koy baamtuwaat mu ne mu ne fas li ak fasala la mu ne génne si wax jóge si beneen wax ni bokkul wax di njëkk ji mu ne laa yaxillu du dagan il janaabat ni janaaba duxulul masjid mooy dugal jàkk mu mooy dugg jàkk mu ne du dagan ki nga xamante ni dafay yor janaaba janaaba wax ne la mooy ki nga dafay sëy wala mu génne man ni waaw dafay sëy wala mu génnee man ni bu baax dañ koy tere mu dugg jàkk wala nañ ko tamit dañ koy tere mu jàng ay alquran dañ koy tere mu jàng alquran waaye wax nañ tamit ki nga xamante ni wax mooy sëy wala génnee man ni ku léegi ku xamante dafa yor dañ koy tere mu dugg jàkka dañ koy tere mu jàng alquran te koo xamante ni yoruñ jàpp yoru njàpp boobaa kooku waneen dañ ko tere mu jàng alquran dañ ko tere mu wër kaaba ba ku yoru njàpp dañ ko tere mu julli dañ tere mu wër kaaba ba tere mu laal kaamin alquran waaye waxutum dañ tere mu dugg jàkk waaye fii nii ku yor janaaba moom waaw moom tere mu dugg jàkk mu ne wala qiraatu quran di jàng alquran mu ne si nekk xam ne janaaba kooku du jàng alquran mu mu ne illa ayatin lu aaya wa waaw kooku kooku dafay jàng aaya may neen ko mu jàng aaya wala lu mel aaya waaye boobu ko muy jàng alxuraan comme comme ça muy jàng alxuraan carrément noonu déedéet lan lu tax ñu may ko aaya wala koo xamante comme imaam la imaam la léegi gaa yi ñëw laajte léegi mu bëgg leen wax benn aaya ne lii la aaya ah, yàlla wax waa loolu dagan wala muy jul muy nalaw muy nalaw bëgg lu mus muy jàng xul wallaahu ahad yooyu noonu waaw loolu dara nag may nañ ko waaye lan lañ ko may lan ah, may mu jàng ah, alquran lu bëri mu ne mu ne li taawuzun li taawuzun wa ak nduróoy moom lay wax ni mooy ki dafay muslu waaye comme muy nalaw muy mu jàng dara oh, pour ah, tëdd ba waaw loolu dara nag wala loolu yu dagan liman liman laa liman ki nga xamante ala alal laa yaqdur attan taalal maay ci kaw ndox a ne albaardu bu sedd mu ne mu ne su nekkee ki ni dafa bëgg seel jabaram te moom at comme ça dafa ragal ndox bu sedd dafa comme ça ndox bu sedd rek moo fa am te moom da ragal bu baax kooku dañ koy aaya bañ mu seel jabaram kooku dañ wax doo seel sa jabar waaye mu ne su nekkee na moom moom dafa gën a seel moom mu ne su nekkee moom dafa gën a seel moom comme ça nekkoon benn dëkk ñëwee mu gën a seel moom te su seelu moom instant yi nii waaw dafay njaalo waaw kooku te ñuy wax may nañ ko mu seel moom su paree heure julli su jotee dafay tiim rek te julli mu ne ayetee mu dikk zawja zawjatu jëkk ah, jabaram ataayu da bam bàmmu ataayu ah, da bam parpaala allaadata njubtukaay laa yatima lu may mu gént falaase de dara li di ko war mu ne su nekkee ki nga xamante ni moom kooku dafa am ah, soxnaam boobaa kooku su amee soxnaam boobaa balaa moo tëdd comme ça su xamee séyal moom ndox bu sedd ma fa nekk boobaa kooku dafay dafay war mu wut wut jumtukaay comme mu wut ah, barada wala mu gaz ak almet yooyu noonu pour faj xam ne su ba pare rek day ñëw rek tàngal ndox bi sangu boobaa loolu loolu may daggal waaye su nekk xamante ni utuñ amul njumtukaay amul dara dafay ñëw si dafa ndox dafa dafa ndox boobaa kooku dañuy wax du séyal jabaram lu mooy mu am dañoo xamante lu may moo xamante ni su séyul moom dafay jaalo léegi dañ kon boobaa dañuy bañ mu jaalo boobaa ko dañuy wax mu séyal jabaram waaye su jabaram ba pare na boobaa su heure julli jotee boobaa kooku noonu dafay tiim rek te julli mun wala ki xamante ni moom dafa gént boobu dafa gént ah, sé dafa gént génnee man nii boobaa kooku su géntee génnee man nii te moom dañ kaa wax du sangu dafa kaa waxoon doo si doo si eewu ka nga dafa ragal ndox te amul ndox bu sedd kese moom na wax nañ ko du seel jabaram te mu mu tëdd léegi gént ah, génnee man nii obaa si génnee man si ñëwee si diise ah, génne na man nii obaa kooku du du kooku obaa kooku du sangu du sangu dafa gént ah, génnee moom dafa ragal ndox léegi ñu ko doo seel sa jabar léegi mu mu mu tëdd gént génnee man nii boobaa kooku su génnee man nii boobaa kooku comme su ta fajar si jot na boobaa kooku dañ koy wax mu dañ koy wax mu tiim julli waaw dañ koy wax waaye si suba si na foofu noonu mën naa am ndoxi tàng boobaa su boobaa boobaa dañ mu dem sangu mu dem tam sangu ji mu sangu ta boobaa kooku dafay sangu boobu noonu ba muy tiim ah julli boobaa ko jamono ba mu tiim julli boobaa ko dafay yéene la lay yéene moom yéene mooy yëkkati toj bu mag boobaa si jamono ba mu tiim julli day yéene ne maa ngi yëkkati toj bu mag kon tey li ma nekkoon sin darsu septembre bi li si jub si yàlla la li si dëng sin kaat xam-xam la in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh